boo xam ne benn la ci jikkoy tasawuf yi bokk ci jikkoy lislaam yi gën a tedd gën a màgg muy li ñu tudde alwara te ak sàmm sàmm jikko la ju tedd bokk ci jikkoy lislaam yi gën a màgg xam ci la lépp nit ki di teye ak lekkam ak naanam am colam ab léppam ci ak sàmm ci lay ci la loole di di di di di teeye ci sàmm ci la nit ki mën a seetale diineem ci la mën a seetale it ab deram waaye mu nekk màndarga ci màndarga jaami yàlla yu tedd yu baax yi waaye nekk melokaan yi ci melokaani nit yi ngeen yéeg nit yi tedd nga jëmmi baat bi nag nga bàyyi lépp lu xaram ak génn ca ba set wicc prix nag ñu bari ca xam-xam boroom xam-xam wuute ci ci niñ ko firi waaye maanaay yëpp nag yenn la ñi dañu wax ne mooy nga bàyyi lépp loo sikki sàkk lépp la sikki sàkk lu la wóorut ak bàyyi lépp loo xam ne lu la mën a ayibal la waaye te jàpp ci la gën a wér jàpp ca ca ca ca la la wóor ak teg sa bopp nag ay diis diis si jaamu yàlla am ñu ne mooy bàyyi bàyyi lépp luñ ne aayut ngir moytoo tabbi ci lu aay tarku ma la ba'sa bihi xadaran mimma bihi ba's bàyyi luñ ne aayut rek nga def bu yàggee nga tàbbi ci lu aay am ñu ne mooy bàyyi lépp lu ñuy ragal loram bis penc loo xam ne mën na laa jural lor ëllëg nga bàyyi ko am ñu ne itam mooy bàyyi mboolem lënt yi ngir ragal a tàbbi ci xaram yi ñan yi ne wara mooy génn ci bànneex yi bàyyi mboolem ñawteef yi boo xoolee prix yee wute waaye maana yëpp nag yenn la kon mën nga rek sàmm kon mooy joox wari gar yi waaye bàyyi yu xaram yëpp ak sori mboolem lënt yeeg ngir ragal tàbbi ci eh, lu du noona ànd ak lañ lañ am lépp seeni xol waxtu nekk dafay yëg yàlla di tiit ba mel ni luy bëgg a tumuraanke mel ni luy bëgg a far fàddu suñ jamono ji jamono joo xam ne doomu aadama daanaka itam yépp xaymam teef xaymam adduna la ak di ko wut di ca kër-kër yi ba mel ni li ñu tudde xaatu bi lay li nga xam ne taxanum guddi nga xam ne mat ko dajal for ma ne ràññeetuñ diggante lu am njariñ ak lu am lor ràññeetuñ diggante lu dagan ak lu xaram ràññeetuñ lu baax lu bon waaye dañu dajale rek eh, lam ak sàmm googu nga xam ne moom la lislaam digle muy jikko jikko jikkoy lislaam ju mag joju sàmm nag mooy li aar boroom ba dox digganteem ak tàbbi ci lu xaraam dox digganteem ak gàttañ lu walla sàggan ci joox wari gar yi sàmm it mooy li ko musal àdduna ak àlaxira yi ak deret yi ak alal yi mooy sabu si tax itam yóbbu nit ki ci mën a jëfi njëkk waaye yóbbu ko ci mën a doylu doylu doy doylul bakkanam te yàlla tax moo ko yóbbu itam ci ak tab lu mu am bokk nit ñi ci sàmm ci la aare aw làmmiñ ci xiil xaal jëpp wax ju njariñ ci lañ koy sàmmee tamit ci jëw ak ràmbaaj ak jeqi fitna ak tasaare ko ak lépp luy jur ak lépp lu koy jur ci sàmm ci la ñuy mën a aari làmmiñ ci yooyu yëpp ci sàmm ci la xemum àdduna ak wut ko di di di dàqoo eh, ci sàmm itam lañuy lañu ci la ñuy mën a aaru ci lextikaar muy dund ci kaw nit ñi jëleen ci xusayfatul yamaan radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa wax na ne fadlul ilmi xayrun min fadlil ibada wa xayru diinikum alwara ngëneelal xam-xam euh, moo moo gën ngëneelal jaamu yàlla moo féete kaw ngëneelal jaamu yàlla waaye ngeen ji seen diine nag mooy sàmm xaakim moo génn xadis boobu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ma ne yaa aba hurayrata kun wari an takun abada nnaas wa kun xani an takun ashkara nnaas wa axiba linnaasi maa tuxib maa tuxib li nafsik takun mumina wa axsin jiwaara man jaawaraka takun muslima wa aqil daxk fa inna kasrata daxk tumiitul qalb nee na salaasan dafa wax ne yow Abu Hurayrata rata nanga nekk ku sàmm soo sàmmoo day jàppal ne yaa gën a jàmm yàlla ñëpp waaye nekkal ko doylu soo doyloo itam yaay ki gën a sant yaay ki gën a sant ñëpp na rafetal saw dëkk yi nag ñi nga dëkkal kon wax ne laa yujibukum kathratu salaati mri'in wala siyaamuh walakin anzura ila wara'i fa in kaana wari'an maa ma razaqahu llah min al ibada fa huwa abdullahi xaqa nit ki barik jaam ay kooram ak i sarxeem ak lu baax ya muy def lépp bu leen ci dara yem waaye xool leen ak sàmmam rek so ngeen xoolee gis ne ko sàmm la ànd ak la ko yàlla wësëgal ci jàmm soo ba jàpp leen ba wane kooku dëgg ci rafetal ak jàmm kon sàmm ci la lépp nekk moo tax shaa'ir ba ne woon lay laysa zarifu bi kulli bi kaamilin fii zarfihi laysa zarifu bi kulli bi kaamilin fii zarfihi xataa yakuna fa ida tawarraa an maxaarimi rabbihi fa hunaaka yuddaa nee na mbaax ak tedd nga dëgg-dëgg euh, munta mat lu may nit ki feggu ci lu xaraam bàyyi lu xaraam nit ki saa bu sàmmoo nag ba bàyyi yu xaraam yépp suba kooku nag mooy dëgg-dëgg ki ñuy wooye nit ku tedd nit ku baax nit ku sell waaye itam nit ñu baax ñëpp nekk nekk ay royuwaay ci sàmm ña ci jiitu mooy yonent yi nekk itam mandargay ñu ragal yàlla ñu baax ñëpp ñu tàmbale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy royukaay bi gën a mag ci lépp ñëw na ci as-saxiixayn jële ci abi hurayra ko yàlla gërëm mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inni la la ataqallabu ila ahli fa ajida atamrata saqitatan ala firashi fa arfa'uha li akliha summa axsha an takuna sadaqa fa alqiha neen léeg-léeg danaa del dem sama kër fekk ci sama kaw lal tàndarma su ma ko jëlee ba ko bëgg a jëfandikoo ragal ne lii mën naa am sarax la ma dal ko waccaat xam nga néewut fekk naa ci tool ba néewut lu mu fekk ci yoon wi néewut lu mu fekk ci ëtt waaye lu mu fekk ci kaw lalam kon loolu mooy dëgg-dëggi dëgg-dëggi dayub sàmm ba tey jël na ci abi hurayra ba tey mu wax ne anna alxasan bna ali axata tamratan min tamri sadaqati fa jaalaha fii fii fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bilfarisiyati kix kix amma taarifu an anna la nakulu sadaqata xasan moom imam ali satu yéndu saa sam neen dafa ma sa ñëw ci sarax si sarax yi jël ci tàndara dem ba dugal ko ci gimiñam saa sa ko yàbbil yàbbil yàbbil xanaa xamul nun waa alul baytu duñ lekk sarax kon day woon kon lépp ak sàmm lay tegtale benn waay bu baax xisa boo xam ne yonent bi saa moo ko nettali nga xam ne royukaay la bu bu bu am solo ci wàllu sàmm abi Hurayra moo ko solo mu ne ab waaye dafa mës jënd ab pàkk jënd ko ci keneen kon demee ca pàkk ba nag mu fekk fa bu waat bu waat bu mag bu fees dell ak or wurus mu des ci ki ko jaayin pàkk bi ni ko jëlal sa wurus yi ndax man pàkk laa jënd waaye jënduma wurus borom pàkk bi ne ko waaye dama laa jaay pàkk beeg lu ca nekk ñu ñu ñu bësante ca bësante ca kenn nangu ko jël kenn kon bu ko bàyyee moromam loolu def naa wut naa suñu jamono jii mujj dem ci ko leen di àtte ka leen di àtte laaj leen ndax am ngeen njaboot yaa ni ko man di am naa doom ju góor yaa ni ko man di am naa doom ju jigéen mooy nañ dencal doomi ku jigéen kii doom ju jigéen nañ ko denceel doomi ku góor yi kee soo defee nag wurus wii ñu génne ca can gaag la ca jëm la ca la ca la ca ñu sarxe ko xam looleen atte nga xam ne kenn nangu ki caa jël ki naan pàkk dong laa jënd jënduma wurus ki ne ko pàkk ak lu ca nekk laa la jaay loolu na kon dëgg dayo sàmm kon mooy mooy mooy loolu mu am itam ay màndarga ak melokaan moom sàmm jullit dañoo sàkku ci moom mu sàmmonte ci tab bi lépp lu bon ci wax ci jëf wala ci jikko ak wala aw melokaan waaye mu nekk lu yaat loo xam ne incha allah buñ ci desee gën a gën cee yaatal yàlla suñu bam boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci da def nu dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nanga nu suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu